toppoon doon leen ko defal rek suba ak léegi muy gani Serigne Cheikh Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Khady yi ñi nga xam ne bàyyi nañ seen i yitte teew ngir jëmmam waaye ku ci nekk jóge nga dëkk ak dëkk teew ngir jëmmam ñu taataan kenn ci kàddu yi rek muy Serigne Kélédor moom it ku ne xam na taxawaayam ci réew mi waaye ku ne xam na ak njàmbaaram ci réew mi bu ko defee ñu taataan ay kàddoom rek mu wax lenn ci digganteem ak Serigne Cheikh Abdou moom Baye Cheikh Khady salaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñi seetaan euh, Touba Vision euh, seen serviteur Clédor Sène moo leen di nuyu di leen ziar tey moom dama gane si euh, sëñ Abdou Mbacké ci màggalam bi ci bésam bu tedd bi mu nekk sama coloré sama sëriñ sama xarit sama lépp daal euh, ndax baaxam day dajale ay kàngam ay boroom xam-xam bés bu ne këram te bëri na euh, ay ajuma yu ñu daje gannaaw juma ñuy am ay jotaayu waxtaan ak ay nitam moom dafa bëgg daal dajale ay nit ak ay. ba kër ga di ñu seet si te ñun ñoo waroon jóg dem ba ci moom di ko ziar. sëñ Abdou nag moom munu munu ma ko fay nit ku baax ku mu am boole koog man moom day boole ay nit euh, day boole ay nit yu baax donc moom dafa dem ba am benn communauté euh, benn mbooloo moo xam ni nit ñi dañu dem ba xamante ba xaritoo fii ba bitim réew nag képp ku mu xam ni war na la mën a booleek moom ci ngeen am diggante bu rafet rek da koy def da koy xeeb xeeb nag boole ci di la may ay ay ay addiya sax te yow la war kol gii ma làmboo nii moom moo ma ko moo ma ko baaxee man kenn xameewu ma kol ak yeneen ak yeneen euh, addiya yi nga xam ni da koy yëkkati da ko jox jaam yi kon may am mbégte tey euh, ànd ak mbooloo mi nga xam ni mbooloom lañu parce que yàgg nañu dajale këram wala wala après juma ñuy waxtaan kon tey jii bu ñu néewee ba mag ay universitaire ay arabisant ay imam presque ñëpp imam lañu oto bi ma dugg ñëw bus bi ma dugg ñëw man rek maa ci dul woon imam